élection yi passé benn parti seenu leen yi la dëkk bi wax Ib Saloum Ib Saloum ñëpp ne seen jafe-jafe wàllu yoon ci la bokk seen jafe-jafe wàllu jàng ci la bokk te ñëpp xam nañ ne les meilleurs élèves du Sénégal ci ñaari yoon euh, la ba léegi il est le censeur au lycée de Nganda ñëpp xam nañ ne jafe-jafe faj mi am na fi santé baa nga ne waa Kër Saalum la population de Saalum ñoo ko tabax seen bopp ambulance bi nekk ñoo ko jënd seen bopp tey gis nañu fii ci feebar papa yi kor la ba leneen ay leneen am ci nga jëm kat la yéen a fere si gis fii ba kat yi wax naa ko sànq di nga def 7 kilomètres si piste bi xam nga ne yoon yu baaxul 9 kilomètres yi raana xam nga ne yoon yu baaxul soo ko atterrir la route goudronné 20 kilomètres donc boo jëlee jigéen ñi am fii mu toll ci mat balaa yegg am problème moo tax majeure partie des femmes qui Tivaouane sont césarisées donc loolu ñu ko war a fajoo ñu yaakaar président Issa am na solution Et demain, nañ ne solution Il ñu doon proposé ça donc ñu dem jëm ko jëm jàppale ko ba incha le problème qui Tivaouane sera résolu problème économique problème la vie, problème agriculture problème la fii problème mu ndox problème la vie, problème mu ndox problème la fii. rappel tout Oumar Ndaw coordinateur régional de Kaffrine.